ay bés ginnaaw gane àdduna ak gën di mbindéef suñu sang Muhammad sallallahu alayhi wa sallam ngir màggal ko moom mi nga xam ne moo tax suñu borom bind àdduna ak àllaaxira sëriñ bi bésu ganeek àdduna sang bi alayhi salaatu wa salaam lépp koy màggal ganaw diko sunu borom magale mom ci surat yu bari ci alcorane karim bés bi nek nekk bésu yërmande ju rëy ci aduna bi sunu borom moko wax ci alcorane ci suratul anbiya ayat 7 107 wa ma ila rahmatan lil alamin yow Muhammad ma la tànn yónni la nga nekk yërmande ci dund yëpp suñu maam bu ma nekkoon la koo xam ne wuutu woon na maam Cheikh Abdou Khadir Jeylaani ci tariqa Xaadiriya te Cheikh Abdou Khadir bokk na ci njëkk a sos tariqa ci ndigalu suñu borom ak maamam rasulillahi alayhi wa moo tax mu wax ne wa jaddi rasulillah taa muhammadan ana abdou xaadir ta cheikhu kullu tarikat mu ne sama maam boo ko xamul mooy rasulillah moom la alquran di wooye taha muhammadun mooy ahmad waaye man maay abdou xaadir sëriñ bépp tarikat bokk di mu bokk ci ñuy njëkk a sos moo tax tarixaam moo njëkk dugg ci Sénégal gannaaw ba lislaam dikkee ba noppi ñu xayma ko ci atam yàlla dimbali ñu nag ba xéewala ñu àll wala ñu saalee Cheikh Abou Mouhamadinil Kounti ibnu Cheikh Ahmad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 ci yi ñuy jàngale xam-xam ak diine. maam Gulaam Kunta kaana min ahli fadli wal wilaayati wa yàlla ne ngëneel moo nekk ci samay loxo ku ma neex laa koy jox waaye mu dellit wax ne wallaahu waliyul mu'miniina yàlla féetewoon na ak ñu ko gëm mu féetewoo it gaa yu baax la lii lépp li muy tekkale dara ji ci màggal ci maam Bunaama Kunta muy dara ji ci nekkoon ci Seydina Moxtaar Kunti radiyallaahu anhu te ñëpp xam ne njëriñam ak leeram baawan na ci Sénégal mu nekkoon ku juróo woon ak mag ñi bokkoon a jamono ba tax na moom la sëriñ maam Mor Anta Sali tuddee woon maam Cheikh Anta Mbacke borom gërëm ak gërëm naka noonu boo jëlee Tiwaawan soxna Marème Kunta doomu maam Mbuub soxna yi Seydi Ababacar Si sëriñ ñu dëkkaloon ko fii ci Tiwaawan ñu tuddee woon kër gi tey Tiwaawan ak Njaasaan daanaka benn dëkk la kóllëre moo nekk ci njaboot gi mu fi bàyyi gën a jubóo yi ak kilifaay diine yëpp ndax xam ne lépp lu waay def seen maam rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam ko defal kon yàlla nañu yàlla fayal maam bu kunta ndax bi ñu fi jógee ba léegi atum 1914 ñu ngi bëgg yàgg te dara yàquwu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 ñu ngi ko gëstu gis ci solution waaye di ko mën a wasaare ba jëpp jàpp ndax say jikko yu bëri yàqu na sëriñ bi président Macky mu ngi feddale kóllëre ak njabootu politique yëpp di la wax ne li ma la waxoon nu ñu fi ñëwee daaw tax na ba mu jaglee noonu li mu tàmbali liggéey fii ci Ndiassane dana ko continuer ndax lépp li nga xam ne nii nekk na bëgg-bëgg dëkk bi bu ñu jàkkaarloo ak comité d'organisation wax nañu ko jël nañ ci note bu neexee yàlla danañ ko def ba baax mu mag sëriñ bi ñu ngi lay ñaanal yàgg bi lool te wér uuf njaboot bi ba tànk yi nga xam ne nii sa mag yu baax yi ak sa waajur yi daan nañ ko dox nga def ko ci jàmm ba def ko lu ëpp ñu ngi yaakaaroon yow sa bopp مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كل يا صل وسلم دائما أبدا على حبيبك